salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu. yéen assemblée national lay waxal. waaw. yi ak ministre yi ñi may waxal xam nañ seen bopp. man waxuma ak opposition sama parti lay waxal. am na ci ay ministre yoo xam ne. waruñu leen jox njaayum gerte gi ak semence gi. genn wàll gi yëpp guddi nañu ñëw casino bi ay nankatu sangara nañu la. Ah. maa ko wax maa am naa ci lu ma leen. Ah. ñii dañuy toog yamba ñii dañuy naan sàngara te li may wax ni barki alxuraanu karim du ay caaxaan caga ju ndaw ji nekk Dakar gi yëpp ñoom ñoo fay dem ay jëndkatu bànneex yu mag nañu maa ko wax maa ko wax man li may wax du ma ko nëbb guddi gu nekk ñu dem jëndi bànneex ay ministre yoo xam ne xamuñu dara ci gerte xamuñu ci engrais loolu loolu président Macky Sall war na fal ay xale yu ndaw te boo waxee ñu nekk ci internet bi di la ku ma ci saaga ma saaga la man duma bàyyi xale tey la sa weer di dee qu'est-ce que ça man Macky Sall juruma ha ah, ah. du sama baay du sama nijaay ba may ànd ak moom ñii ñëpp toog fi ñu genn wàll gi anuñu woon man gerte dama ko xam man ma jaay gerte gu ñu saaf ak bu ñu baxal ah. xam engrais kam gerte caaf man ba may liggéey ci engrais day tey laaj ma ñu bari bëri Mamadou Diagne Fada ngi nii baayam suba xarit la waaye boo leen toogee naan président Macky Sall genn wàll gi yëpp ay nettalikat nga yéen a ngi ni wax leen. boo leen ma waxee ma toj dëkk bi léegi laa bu guddi jotee ñoom ñëpp ñu ngi ci café de Rome bii ñoom ñëpp xàmme naa leen xale bu taay fiin nañu bañ a gis ku ñu gis rek daal di lay fiine booy war wër labatkat numéro un boo ñëwee APR fii nga leen di fekk. doxaankat yu mag yëpp yaa ngi ci eh. parti bi maa ko wax ku mu naxaree na ndax ci laa bokk moo xool ndax ci nga bokk boo leen jógee di yàqal président Macky te Macky ci boppam dafa ñu war a déglu parce que ñoo fi nekkoon jëndkatu bànneex yi ngeen doon guddi gu nekk yéen a ngi raas déem boo leen toogee naan xale yi li ñu sol dafa gàtt fekk loolu leen di daanal yéen ñëpp laa wax wax leen man ah. assemblée laa ko wax man du ma daw du ma dellu ginnaaw am naa xaalis président Ablaye Wade li ma defal kenn defalu ma ko moo ma njëkk jox 20 millions. ay ah, da boo jigéen nii moo indi woon 10 millions yi. man sama wax amul ay waxu caaxaan jënd katu tu yi ngeen doon <laughs> boo leen toogee ci seen télé yi tegle seen tànk yi naan la président Macky ma reçu fekk yéen luñ leen jox au ngeen jox ko askan wi ngeen dem di ko jox jaaykatu bànneex yi <laughs> dañ ko ministre yoo xam ne guddi gu nekk ñu ra man ñu ñu dul doyal ci yéen laa ko gisee. aywa gen yi président Macky dafa ma war a jox ministère de l' intérieur rek genn wàll guddi gi ñoom ñëpp guddi na ñuy jox guddi àjjuma ñii di sant ñi di gàmmu ñi di def leneen ngeen di raas déem jënd ko tu bànneex yi ngeen doon maa ko wax. bul toon Cissé Lo kon dëkk bi yëngu. buñ ko waxee ma wax bul toon Cissé Lo kon dëkk bi yëngu. maa ko wax kenn wax. bul toog Cissé Lo kon dëkk bi yëngu. maa ko wax maa ko. bul toog Cissé Lo kon dëkk bi yëngu. maa ko wax maa ko. bul toog Cissé Lo kon dëkk bi yëngu. maa ko wax maa ko. bul toog Cissé Lo kon dëkk bi yëngu. maa ko wax. ay bul toog Cissé Lo kon dëkk bi yëngu. maa ko wax. ay bul toog Cissé Lo kon dëkk bi yëngu. maa tay. ay bul toog Cissé Lo kon dëkk bi yëngu. maa am fit. bul toog Cissé Lo kon dëkk bi eh, yëngu. eh sama ngañ. bul toog Cissé Lo. eh maa tay. maa tay sama ngañu damay wax de ma wax